jërë ngeen jëf ku bëgg a dee wéq nañu moo tax it askan yu mbënd mi sëkkatal wéq nañu bay wéqi libération xamal ñu ci xët mu njëkk ne li xew moo di askan wa ca banlieue bu ndakaaru ñoo becc seenu mer ak seen xol bu tàng ci mbedd mi muy ca Lansar di ca Tiwaawoon Jaksaaw jàmm gën fu ci nekk la aw nit jugee ñu daje ci autoroute à péage bi doon ñaxtu askan wa ca Kër Masaar ne leen du nga ñu ko dàq sinistré ya fa nekk ñoo baare taliba taal fa ay pëna foo toll di seen saxaar suy sël-sëli ak sawara wuy jax-jaxi libération yi rekaane dama ne la ñaroon manifester am na ñoo xam ne Lansar lañu jugee jógee Tivaouane jag saaw ñiy jàmm gën daal di bloqué autoroute à péage ba gis nga ca Kër Massar waaw ñan loolu lay dañoo baare kon tali ba daal ay pono ca mbaa yéen nga ca taw bi wàcc ci Sénégal ci banlieue bu Ndakaaru soob banlieue bu Ndakaaru ci musiba gu rëy ba tax ñoom ñëpp fëgg seen dënn mer betti ko ci mbedd mi libération ne askanu Kër Massar Lansar Tivaouane jag saaw jàmm gën ñoom ñëpp a wàcc ci mbedd bi bloqué autoroute à péage bi oto demul oto dikkul te Kër Massar ñoom ñi loolu ci mbënd bi génn ci bi jafal pëne yi fësal seenu mer libération ne ñaxtu yaa ngoog banlieue bi moom mer ba futu la def loolee la ñu gis ca Langsar Tivaouane Diacksao jàmmageen Sicap Mbao faf nañoo sax gantal autoroute à bi wax seen jafe-jafe jawr ngi ñu denk wàllu kaarange bii réew mi libération ne bu dee ca Kër Massar sinistré ya ñoo mujjee génn ca mbedd ma fab seen panotaal jëppét ak jafe-jafe askan wi di dund ci biir ndox mi